ñaari soxla amuñu ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul benn soxla sunu lépp ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak sunu mbir mépp mépp mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox nañ jàpp ci daara yi jàpp ci daara yi doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yàlla jox xëjul ci daar yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi liggéeyal al Quran al Karim. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateurs yi mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara. di leen dalal ci euh, seen chaîne bii di dara Koki TV la seen au service di Saint Coran tey nag ci ganu daara ji ñu ànd ak suñu gan yu baax yi suñu gan yu tedd yi ñëwoon fii ci daara ji ngir ziyaara si euh, kon duñu def lu dul dalal leen ci suñu xol balaa ñu leen dalal ci suñu seen bii di dara Koki TV kon sëñ bi ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Ousmane ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaar euh, sama tur Mouhamed Habib jaay la. nekkoon fii ci daare Koki euh, fii lañ jànge ba yàlla def ñu jóge fii fii lañ jànge alxuraan ba ba am fi suñuy kii daal suñuy diplôme incha allah. jërëjëf jërëjëf sëñ Mouhamad Habib ñu ngi lay dalal bu baax a baax a baax ci daara ji di la dalal ci suñu seen bi di euh, daara daara Koki la seen au service du seen Coran euh, ki ci des sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Seydina Ousmane ñu lay fay. ni wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu suñu tur Ahmad Dame Thiam la nekkoon fii si daara ji aussi doon fi jàng ak jàngale ba yàlla dogal suñu jeexal si barab bi ñu déplacé wu nekk seen yitt. waaw sëñ Ahmad Dame Thiam waaleykum salaam wa rahmatullah ginnaaw loolu euh, sëñ Mouhamad ñu ngi doon bëgg a xam ana lan moo waraloon tànk yi. Euh, ba tax déplacement bu guddi bii yëpp ak coono yi yëpp ngir ñëw fii tey si daara ji ngir ziyaara bëggoon nañu xam dëgg-dëgg lan moo waraloon tànk yi. waaw alhamdulilah euh, sëñ Ousmane waaw tànk yi dara du tànk yi dara du tànk ku nekkoon ci ak këram mu gëj fa namm ak njabootam namm ay mbokkam ñëw. Mhm. pour ziyaara si waat ay ak njabootam. Mhm. Euh, kenn ku nekk xam ne ñu daaree kooki mooy suñu lépp daaree kooki moom suñ dund dañ naan. buñ ko xaajee benn ñaari xaaj benn xaaj bi kokki lañ ko def liñ dund kokki defuñ ko feneen kon yaakaar na suñ ñëwaatee suñ ñëwee ci daaray kokki tey ji du ñëw ñëw tukki wala déedéet maanaam ñëw ku ku jugoon këram dellu si si këram kon loolu mooy si ñëw si si ñëw si si daaray kokki fii te daara kokki moo ñu defar suñu lépp daal kon war nañ ko delloo njukkal lépp lu am ci daara ji war nañoo ñëw xam fan la liggéey bi toll di ko nemmeeku bu baax te te di jéem a def loo xam ne dana gën a demal kanam suñu loxo suñu lépp suñu man-man suñu suñuy xalaat lépp jéem a xam lan moo lan lay daara ji gën a doxee lañ fi bàyyoon ak ni muy doxee yépp di jéem a nemmeeku daal di ko jéem a jottali tamit ndax mm-hmm. euh, daare ko ki daal mooy suñu lépp mm-hmm. tànk yi daal tànk yi nemmeeku la xool ci dëkk palaas barab boo xam ne ni fi lañ nekkoon ba yàlla def ñu jógee fi bu ñaan bu ñu fi jógee sax moom moo ñu génnee bañ bañ yegg fi ñu yegg si tey ba yàlla def ñu ngi jàng ba uh, am nañ suñu diplôme ba ñu ngi def master instant bi comme lii bu xewee comme uh, rencontre bi bu xewee war nañoo mën a ñëwaat bokk ci ñuy ñëw teew xam li xaw xam liggéey bi fu mu toll bu defee ñu mën a uh, suñ suñ xel gën a dal daal maanaam daal daal si gàttal daal mooy ku nekkoon si këram daal di fa dund ba si yàgg mu tukki ñëwaat dellusiwaat si këram pour mm. nemmeekuwaat ak njabootam daal. jërëjëf jërëjëf sëñ Mouhamed ku nekkoon ci këram jóge fa ñëwaat nemmeeku ko kon ñu lay dalal bu baax a baax a baax ci sa biir kër di la wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik di jàkkaarlook suñu mbokk mu baax mii nag ci am moom tamit di la doon laaj ana tànk yi tey jii lan moo ko waral. waaw sëñ Ousmane ni ko sama mbokk mi waxee rek. tànk yi moom du dara lu tànki nemmeeku ak tànku ziyaara ziyaara boo xamante ne bii dañ koy jëmale ci daara ji ak sëriñ bi ak mbooleem njaboot gi daara ji yëpp te dafa nekk année boo xamante ni bii waxtu bu jotee rek dong yi mboolem fu nekk si àddina bi dañuy xëntuwoo daw ñëw si daara ji ngir xam li nekk ci barab bi dañuy wax ne ñun moom toujours buñ buñ sañoon semaine bu nekk wala ay bis bu nekk dañuy ñëw si daara ji ndax dañ fi gis yokkute rek lañ fiy defee boolu kon bi nga xamante ne bi daara ji moo xewle mu nekk ziyaara boo xam ne am na ñuy wax ndaje am na ñuy nag waaye nag lépp loo ci wax rek benn la <coughs> ndaje mi dañ fiy ñëw ngir sàkku si ñaan ngir defarwaat ngir ñëw tamit ziyaare sëriñ bi mu gis ñu gis ko ak mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoo fi bokkoon nekk démb ak barki démb nga gëj leen gis lool ñoo xamante ni bii kenn xamul kañ nga leen gën a gis boo ñëwee fii da ngay dajeek ñoom ci loolu tànk yi li ko gën a waral loolu bokk na ci loolu bokk na ci gën a sabab ñëw bi ak ñëw tamit maanaam nemmeeku sëriñ bi nga xam ne moom gis ko rek yokkute la sëriñ bi gis ko rek yokkute la rawatina njabootam gi ak ñëpp ñoo xamante ni bi ñoo nekk ci liggéey bi di ci jàpp kooke daal boo bëggee dégg ñun dañ koo safoo safoo gi du lenn lu dul daf ñee naxut ndax daara ni bi bokk nekk daara la joo xamante ni bii ku fi nekk di liggéeyal borom bi tabaaraka wa taala lépp loo xamante ni moom lay digle moo si jiitu lépp loo xam lu muy teral la kenn du ko si gis ñun nag moom jikko yooyu lañ gis ci barab bi moo tax ñu koy xenc waxtu bu nekk tànk yi daal tànk siyaare la ak tànk nemmeeku ak xencu lu baax boo xamante ni bii nii gisuñ ko fenn ci Sénégal fu mooy kokki jërëjëf jërëjëf sëñ Mouhamed Thiam kàddu yi rafet na matale na ginnaaw loolu ñu jàkkaarloog ak sëriñ Mouhamed Ndiaye ginnaaw bi nga ñëwee si daara ji bëgg nañoo xam euh, sa ziyaare bi nga def ana yan jàngat nga xamee ni def nga ko ci daara ji. waaw ziyaare bi liñ ci am mooy gën a kontaan gën a am kontaante lool mooy ci liggéey bi ñu gis liggéey bi ni muy doxee. Mhm. liñ fi bàyyoon ak liñ fi fekkaat mooy ne gis nañu avancement bu baax mu ngi am ci ci daara ji. Mhm. ci njàngale mi ci njàng mi ci ak ci daara ji environnement bi ni muy doxee ci daara ji lépp gis nañu macha allah. mën nañu wax mu ngi dox 100 pour cent ndax boo fi bàyyi woon 50 tey fekk nga fi na muy dox kon kon dañu daara ji mu ngi dox mu ngi dox bu baax maanaam daal li ñu fi fekk daal dafa gën a dal suñu xel ne kon kat ñun li ñu fi bàyyi woon kat ndeke mbir mi na mu doon doxee tey dafa yokk mooy kon alhamdulilah dañuy sant yàlla bu baax na kon Cheikh Ahmad Sakhir Lo mooy lam doon lam jëmbatoon doon ko mébét tey lam fi bàyyoon tey mu ngi dox bu baax tey yaakaar naa bu ñëwaatoon tey xelam dana dal baax wala bu ñëwaatoon tey dana gën a kontaan lool te la mu fi bàyyi woon de ñi ngi ko dénk ñi ngi koy doxal na mu ko na mu ko bëggee woon wala lu ko raw sax mm-hmm. loolu kontaan lool ku bàyyi ab bërëb wala ku bàyyi sa kër nga gëj fa ñëw la nga fa fekkoon nga ñëw fekk muy mu am ak yokkute yaakaar na kontaan loolu ngay def mm-hmm. kon loolu suñu kontaan lool mooy mm-hmm. te bokk na ci kontaan ki ñu fekk mooy tamit suñu mbokk daara ñu mbokk ndong yi nga xam ne ñoom ñoom lañu fi nekkatoon doon gëj leen a gis lool nga ñëw gis leen loolu kontante la mm-hmm. am sag njab am sag yi say mbokk say xarit say dëkkandoor mm-hmm. nga nekk fi ñoom ay at nga toog ay at gisoo leen nga ñëw fekkaat leen fii nemmeekuwaat leen loolu tamit bokk na si kontante gi duggaat suñu xol gis ne kon yow mbëggeel gi nga xam ne moo nekkoon ci yow jëm ci daara ji ñooñ tamit loolu mu ngi ci ñoom kon loolu te day gën a yokk ca kontante kon ñu gis ne daara ji daal Euh, liñ ci doon liñ fi doon wër si daal mu ngi fi mu ngi fi daal ba léegi day gën di yokk. jërëjëf jërëjëf sëñ Mouhamad kon wax dëgg yàlla ñëw bi wuy na turam di rencontre annuelle bi nga xamante ni moom lañ doon def di niki bërki démb di euh, tombeek euh, le 24 décembre kon wax dëgg yàlla ñëw bi wuy na turam. kon daal ñu ngi leen di dalal bu baax a baax a baax ci daara ji di leen dalal ci daara Koki TV la seen au service di seen Coran ginnaaw loolu sëñ Mouhamad Thiam ana lan ngay tëjee sa kàddu di ko jox mbokk internet yi lay suivre. waaw xanaa di sant yàlla bu baax di juddu si yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xamante ne moo ñu may euh, effort yàlla dimbale yi ñu fekkee année bi nga xam ne am na ñu ko wuute ñu bare bëri ñoo xam ne defuñu lu tax yàlla jëlee leen fi. ñun bi ñu yàlla mayee ñu fekkee ko kon dañuy sant yàlla bu baax di ñaan mu mayaat ci fekke ko déwén yu baree bëri li ñu tëjee rek suñu kàddu moom mooy sant yàlla ak kontaante bu baax a baax di wax ne Koki moom ñu ko français di waxee mooy suñu fierté ñun Koki moom moom lañ am ñun ñu ko sëriñ Bas Xaadim Awa Ba di ko waxee ñun ko kokki lum moo ñu saf lum ñu jox bëgguñu lum ñu may soxlawuñu ñun loolu mooy li nga xam ne lañ gëm di wax ne seen bi nekk daaree Koki TV bi ñu ngi ñaan yàlla fépp fu ñuy dégg yokkute nag si yàlla def mu àgg foo xamante ni fu kawe njortu la ndax moom li muy def moom mooy tasaare information yi xew si daar yi ñun fu ñu mën di nekk si àddina bi ñu ngi koy topp di ko siifo mu nekk seen bu am solo seen boo xam mi ngi liggéey lu rëy a rëy si njiitu Oustaz Abdou Khadre Seck mu jàmbaar lool man lool li muy def ak ñi mu àndal ñoom sëñ Ousmane ak sëñ Mbaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla daal seen seen bi dem ba nekk télé dem ba nekk ay télé yu mag a mag si réew mi ñu xam ko te di dénk sama mbokki taal bi yëpp nañ abonné si seen bi di ko may doole parce que loolu mooy dimbale sa bopp ndax seen boo xam te ni bii buñ ci abonné ñun ñëpp rek mu yokkute rek dana nekk yokkute si ñun yokkute si daara ji te loolu moom la ñëpp di ñaan yàlla di ñaanal suñu wajuru sell yi nga xam ne suñ Moxtaar narloo comme ni ko suñ Mor Abim joxee suñ bokk rek suñ Moxtaar bu fekkoon liggéey bi suñ suñu Ahmad Saxir loo def foo defoon benn moom def na ko téeméer kooku kenn amul fayam bokk na suñu kàddu yu mujj yi loolu lañu koy tëjee di ko ñaanal yàlla mi nga xam moom moo moo yor ak wër yor gudd fan yàlla na ko defal ñun ñi nga xamante ni bii ñun moom bu ñu sañoon kenn ku ne si daara ji bu ñuy wax ne cinq cent cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept taalibe mi ngi fi bu ñu sañoon cinq mille yooyu kenn ku ne yàlla suñu borom dana jël at si atam yi benn jox ko suñu Moxtaar Naarlo parce que moom nekkam fi lu am njëriñ la nekkam fi lu am solo la te alxuraan moo koy tegtale amma ma yan faw naas rek fa yam ku sufil ardi kon daal ñu ko ñaanal yàlla di ko ñaanal mbooleem aada yu koy jàppale di ko ñaanal taawam bu baax bi directeur Baye Modou nga xam ne moom it liggéey bu am solo mi ngi ko def si euh, kër gi si daara ji ak si école bi enseignement bi bu mu oyof lool yor xam-xam boo xam te ni macha allah kon daal seen naas maam suñu bëggee tënk lool daal moom mooy ne ñun daal Daara Koki TV mooy suñu fierté maa ngi digal sama mbokk taal yëpp nañ ci abonné waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Mouhamed Thiam kàddu yi am na solo matale na te gàtt na jërëjëf kon duñ def lu dul ñaanal la yow yowit yàlla yàggal taxawaay bi di la ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla yàggal taxawaay bi te incha allah waaw sëñ Mouhamed xanaa balaa ñuy continuer ak yow rek dañuy may quelques minutes ñu présenter dalal suñ gan gu baax gi nga xamee ne ñu ngi jàkkaarloo ak moom mu ñëw fii tey ci Daara Koki TV la chaîne au service di seen Coran kon sëñ bi ñu ngi lay dalal di la wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci suñu teewaay fii ci studio bi euh, ñun nag wax dëgg nekk nañ ñi ngi jóge ko dëkk bu ñuy wax Taïba Niassène ci région de Kaolack département Nioro dëgg la jàngewuñ ci daara ji waaye ñu jàngee ci daara ji ñoo ñu jàngal ci dëkk bu ñuy wax Thiamène Waalo ndax jamono boobu sëriñ bi moo fa doon eble ay jàngalekat ñu di fa jàngale ci Caamen Waalo fa laa jàngee ci ñoom alquran euh, ba 2014 defe naa ne sama rakk ñëw fi nekk ci daara ji ma ñëw fi seetsi ko bi ma ko seetsee wax dëgg yàlla ci laa xamanteeg sëñ Maxtaar waaye am naa ci moom cofeel goo xam ne ndaje mi bëgguma ko tardé benn jamono daaw tardé naa ko sax waaye dama ko dama ko réparé parce que dama dem ba am temps ma ñëw fi benn alxames bi ma ñëwee gisanteek moom ñu waxtaan mu xamal ma ne fi mu ne jamono ji dafa xat te Saalum dafa sori ku nekk ci daara mënta tukki tukki mu yàgg li tey alxames di nekk feet yëpp ma xamal ko ne ko man yàgg naa ji ñëw ci daara ji te fekkewuma fi benn yoon julli jumaa bëgg julleeg yéen jumaa moo ma tax a ñëw alxames ji mënuma loolu rafetlu naa ko trop ci la fanaan alxames boobu noonu bi ma xëyee ñu julli jumaa biñ jullee jumaa ba pare encore ci lañ gisante daal waxtaan maak moom xam naa maa ngi yemaale foofu ci présentation bi daal. jërëjëf jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay dalal bu baax a baax a baax di rafetlu kàddu yi ginnaaw loolu ñuy continuer suñu mbokk mu baax mii di sëñ Mouhamad euh, ginnaaw loolu bëgg nañoo xam sëñ Mouhamad ginnaaw ba nga jógee ci daara ji nekk ci yeneen unité bëggoon nañ xam ci ana lan nga yëngu ak ci ban taxawaay nga am ci biti. waaw alhamdulilah daara ji comme ni ñu fi jógee ñu fi jugee mooy fii lañ jàngee ba yàlla def fii lañ amee bourse fii lañ jànge ba am fu bourse Égypte dem fa def fa deux ans yàlla si Al Azhar def nañ fa bac après yàlla defaat ñu am bourse dem Arabie Saoudi mi demee Arabie Saoudi euh, fii sa jaamiatu Tabuk def nañ fa cinq quatre ans fa lañ amee suñu licence bi ñu amee licence nag alhamdulilah yàlla defal ñu tawféex ñi bokkoon ci ñi nga xam ne ni ñoo ñoo rawoon ci si si université ba. si mm-hmm. ñi génnoon si jamono si an si année boobu yàlla def ñu jëlaat ñu tànn ñi nga xam ne ñoo raw ñu jëlaat ñu pour ñu war a continuer suñu master. kon jamono jii may wax ak yow ni ñu ngi waaj pour dellu Arabie Saoudite pour continuer suñu suñu njàng. ndax comme yàlla def na bi ñu fiy jógee si daara ji sëñ Maxtaar li mu dénkoon mooy wàllu jàng jàng jàng. maanaam lépp loo xam ne lu jëm si wàllu njàng rek moom moom lañuy ñu dénkoon rawatina njàngam alquran waaye al waaye njànganam alquran mooy baas bi waaye nag moom njàng la ñu dénkoon waaye alquran da ko maanaam alquran da ko da ko yitteel lool daal moo tax kon jamono ji may wax ni ji may wax yoon yi ba léegi ñu ngi si ñu ngi suñu njàng di war a def suñu master alhamdulilah yàlla def na fii ak ay fan danañ dellu continuer suñu suñu jàng incha allah. jërëjëf jërëjëf kon mel na ni yow yaa ngi continuer di des ci li nga xamee ni moo taxoon ñu sanc daara ji muy jàng ak jàngale. Mhm. ginnaaw loolu bëggoon xam ana yan kàddu mooy yi nga xamante ni moom la sëñ bi dénkoon ba tax nga resté di continuer ci jàng ak jàngale ci début jamono boobu ba léegi. waaw euh, kàddu yooyu bi ñuy tàggu sëñ bi mooy bi ñu amee bourse dem Égypte. Mhm. tàggu sëñ bi si toog si buntu ji mu ñuy ñaanal. Mhm. li li muy dénk mooy jàng. da leen góorgóorlu jàng. nekk leen maanaam ambassade daara ji te daara ko li ñu ko xamee mooy lan jàng ak jàngale kon naka nag ngay nekk ambassade fa nga jógee mooy ci ci symbole bi ñu ko xamee mooy jàng ak jàngale kon nañ fu ngeen dem fexe leen ba nekk fa ambassade daara ji ma xam ku leen gisee rek da ngeen xam dina xam kii fan la jógee fan fi mu jógee mooy fan mooy daaray kokki daaray kokki li ñu ko xamee mooy jàng alquran ak jàngale kon moo tax yàlla def na jàng jàng boobu ñu sëñ bi dénkoon ba léegi si la ñuy góorgóorlu te si la ñuy fas yéene ëllëg bu yàlla defee suñu njàng yeggali si njàngale lañu fas yéene yeggali suñu suñu suñu mission incha allah. incha allahu taala ndax oh. kàddu kàddu gi rëy loon macha allah. <coughs> wala incha allahu taala ginnaaw loolu est ce que yow bi la sëñ bi di dénk kàddu yu am solo yooyu. Mhm. fekkoon na euh, sëñ Mouhamed moom muy am mébét yooyu bu jugee ci daara ji continuer jàng ak jàngale wala wala wala. waaw alhamdulilah ñun yàlla def na maanaam suñu suñu suñu mébét dëgg moom mooy jà si wàllu njàng ak njàngale yàlla dafa def yàlla def ñee nattoo daal dama naan natt la xaw natt laa ko mën a tuddee mooy dañoo yàlla dañee nattu ñu bëgg jàng lu jëm si jàng ak jàngale jàng ak jàngale daal moom lañu ñu fas yéene wéyale suñu dund moo tax euh, bi ñu sëñ bi dénkee loolu dañu comme dañ xawma ni koy olof di waxee mooy okk bu daj bu dajee gestu la mooy liñ daan mébét ñi ñëw sas la ko kon loolu da ciy gën a farlu moo tax daal suñu suñu mébét loo xam ne ni avant mooy jàng ak jàngale kon buñ la ko sa sëriñ bu la ko dénkaate kon day gën a nekk ab soñ kon jàng jàngale daal mooy suñu mooy kii daal jërëjëf wax nga ko ci sa biir yi wax muy wokkatu bu dajee ko gestu kon daal wax dëgg yàlla mel na ni sëñ bi Euh, nit ku nekk rek daf la xamoon xam la xam gu wér ba nga xamee ni wax dëgg yàlla li nga wax firndeel na ko. mu mel ne bi mu lay diggal pour boo génnee fii nga continuer jàng ak jàngale loolu moo nekkoon sa bëgg-bëgg. waaw kon euh, ginnaaw loolu ñuy dalalaat suñu mbokk bu baax mi. Hmm. Euh, di ko continuer ak moom di ko laaj ana lan mooy tànk yi ba tax mu passé distance bi yëpp ba tey mu ñëw ci daara ji. waaw alhamdulilah tànk yi moom li ko waral mooy am cofeel ci daara ji rek. ak am cofeel gu rëy ci sëñ Moxtaar ndax bi ma ko xamee ba léegi yàlla dafa def sama xol daf ko jàpp-jàpp goo xam ne même bu ma gisandiwut ak moom sama xol day aju ci moom ak sama xel jamono bu nekk ndax dama ko naw lool ci maanaam façon bi mu nekk sëñ Moxtaar nit la koo xam ne kilifa la goo xam ne tey su fekkoon ne dafa yëgoon ak kilifteefam wala mu mbubboo ko noonu kon sama classe gu ñàkk solo gi duñ mën a joti sax ci moom waxuma la ba mu li leen jox yenn gëdd yi waaw mais moom li muy xool ci nit rek mooy alxuraan xam nga maa ngi wax sama présentation bi ne daaw bi ma fi ñëw ne dama bëgg julli ak ñoom juma bi ma jullee juma ba pare Ousmane Thiam mi ma nekk néegam na ma néeg bi dafa dafa xaw wéet nañ dem fële ci daara ji am naa fu néeg bi ñëwee moom mu ne ci daara ji di jàngale man ma tëdd néegam bi ma jullee tàkkusaan ba pare sëriñ bi dafa yónnee ndaw ne Ousmane Thiam waxal sa gan gi mu ñëw uyu ma fekk boobu mi ngi toog ci mbedd mi foofu ci buntu kër gi ma génn bi ma génnee ñëw fekk mi ngi toog mu teg siis ci wetam dama toogal ma ne ko ah te maa toog ci basan bi mu ne ma mukk toogal ci banc bi forcé ma ba ma toog ci banc bi ñu toog di waxtaan di ma laaj saalum di ma laaj ñuy waxtaan ñuy waxtaan ba ma xamal ko ne ko daal am na benn kaamil bu ma fi jëlee woon daaw bi ma ñëwee ci ziara bi ziara kaamil bi waa kii ñoo ko liggéey waa Ndar waa kër Samba Diagne léegi bi ma ñëwee ma gis kaamil bi fii ne Ousmane Thiam nag kaamil bii de bëggoon naa ci pour ma di koy waxafee parce que kaamil bi mbind mi dafa leer fekk mi nga am benn box boo xam ne juróomi kaamil ñoo ci nekk mu ne ma léegi mu ne na daam ne ko da ngay yóbbu juróomi juróomi kaamil yëpp soo demee nga jël benn jox Habib benn mooy man jox papaam moom Ousmane Thiam benn yeneen ñaar yi am na ñeneen ñu mu ko adressé woon foofu Thiamène léegi bi ma yóbboo kaamil bi di ko jàngee. man li may fa heure bu may faral di jàng sama waxaf mooy su ma yeewoo 4 heures du matin laay liir sama waxaf bi door a nekk ci leneen lu may nekk léegi bi may jàng ci kaamil bi ba egg ci suuratu raadi ci aaya bu ñuy wax yamu llahu ma yashaa wa yusabitu wa indahu umul maanaam miimu miim ba dafa am nuunun bu fa bi andiwut nuunun boobu man ma ma jàng ko xool ko ma ne daal lii daal li ma miinoon daal du lii ci fii ma dellu ci téere yi ma am yëpp ak même téléphone kaamil yi ma ci am gis ne noonu boobu ni ma ko xalaatee daal noonu la dikkee téere bi daf ko bàyyi léegi fekk téere bi ñu ngi ci def numéro téléphone ñaari numéro téléphone ay orange ma enregistré ñaari numéro yëpp envoyé ci vocal xamal leen ne seen téere bi de dama ko fekk kokki xemeem ko bañ may ma ko ma di ko jàngee mais dama cee gis benn erreur su fekkee ne gënal na leen ma leeral ko su leen gënalalu timit man ma defar sama sama sama téere rek man te continuer jàng waa ji ma ci jot moom tamit ku oyof la ku bëgg alxuraan moom it mu ne ma téere bi buñ koy liggéey lii rek lañ ci bëgg alxuraan tool la ku gis ñax rek buddil mu ne ma loolu nga leeral ko rek lañ ci sawar moom lañ yàkkamti ma bind ko ci whatsapp bindal ko wa imma nuriyannaka bi nga xam ne amul nuunun bi xamal ko ne ko bi nekk suur du rax yi dafa am nuunun mu xool ko ne ma effectivement noonu la demee gis naa ko bu baax erreur la waaye nag danaa dem ba Égypte gi ñu woon téere bi pour ñu réparer ko ndax lii moom xam naa ne téere yi xas ba génn topp na leen mënatuñ ko cee dindi moom loolu keroog bi ma ko expliqué sëñ Maxtaar dama ko wax ba daaneel rek mu ne dama ool ma diw xamatuma kan la ci xale yi mu ki amee wàllu tiir yi da ko dem andil ma tiir yi Samba Diagne kaamil bi dem andil ma ko mu dem indi ko mu ñëwee mu joxal càmm mu jox ma ma ubbi téere bi génnee kii bi fu mu toll ma won ko mu xool ko bi mu ko xoolee rek dafa ma lëng na ma dëgg-dëgg yow gan gu ma mos a xam yaa ma ko gënal ndax kuy kuy setantalu alxuraan kooku moom moom alxuraan mu wax ma loolu kontaan trop sax wax dëgg yàlla maag moom daal alxuraan moo ñu takkee moo ñu boole dëgg la dama bejaaw nii weex sax waaye du ma mag moom moom mat na ma bàyyi parce que xam naa ne doomam yi am na ci ñoo xam ne ñoo ma mag sax man xam naa loolu mais moom def na ma wax dëgg koo xam ne daal ci moom mënumaa tànqam lu ay mbiram daal wax dëgg ndaje mi waxtu bu jotee fu mu mën a fekk pexe mu mën a def ba ñëw danaa ko def ba ñëw ak nu mën a ñëwee incha allah parce que xam naa ne alxuraan laa fiy fekk te yokkute ak barke rek laa fiy jëlee tamit asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf kon wax dëgg yàlla mel na ni li ñu déggee ci say kàddu sëñ bi yow ak sëriñ Muxtaar Naar Lo alquran moo leen boole hmm. te ànd bu al alquran boole rek wax dëgg yàlla ànd boobu mooy dëgg hmm. kon wax dëgg yàlla ñu ngi leen di dalal bu baax baax a baax di leen safoo ginnaaw loolu ñu lay laaj kàddu yu mujj yu mujj yi nga xamee ni moom ngay dénk suñu mbokku téléspectateurs yi ak mbokki internet yi waaw téléspectateurs yi ak internautes yi li ñu leen di dénk daanaka message yi jàll yëpp euh, dénkaane nañ ko lu demee ni li ma fekkee ci keroog bi ñu defee ndaje mi ba ci suba si waxtaan bi ñu doon def ci résidence bi résidence bi wax dëgg foofu message ya fa jàll képp ku ko jot ñaax nañ la ci daara ji pour ñëpp jàpp ci mu gën a jëm ci kanam te daara ji moom ci kanam la jëm ku jàpputit ngay toog ba séen leen ñu raw la waaye fekk moom ma ngay dem daara ji moom du taxaw incha allah ndax loolu mooy pas-pasu sëñ Maxtaar te bëgg-bëggam yàlla dana ko ci fekk ndax yéeneem lu rafet la ci jaami yàlla yi ak ci njaboot gi mu jaboote ba tey jii bi ma mujjee giseek moom loolu laa wax dama ne ko man daal dama lay ñaanal rek yàlla may la fan ak wér parce que sa yéene ak sa mébét ci jaami yàlla yi loolu lu ñëpp d'accord loolu lu ñëpp dëppoo la parce que bëggaloo kenn safaan ku ànd ak yow ak ku àndut ak yow ñëpp nga yéene jàmm di teg leen foo xam ne fu kawe la léegi comme li am ma Dame wax léegi ci aaya ba rek amma maa yanfa'u naasa fa yamkusu fil ardi ku amal ni ñi njariñ yàlla mën na la fa yàggal yàlla na yàlla defal ñu loolu yàlla fiq fanam may ko wér may ko fan woo xam ne day gudd a gudd ànd ak wér ak tal lii mu jiite ni dara buum ci sooxe waaw wax dëgg am na ay kàngam yu ko yu ko nekkal ci wetamit di ko jàppale ñoo ñëw it may leen pas-pas euh, njaboot gi timit takkatoo bi ñu am yàlla na yàlla saxal ko kooki daal wax dëgg man bëgg naa ko xemeem naa ko te taamu naa ko it li ma fi gis ci daara daal gisuma ko fenn ci daara wax dëgg yàlla ba ma dalay yëngatu ci mbiram daara ak léegi li ma fi gis ci fii rek laa ko gis sëñ Maxtaar man mosuma fee ñëw waxtu julli jot sëñ Maxtaar tarre julli ba day julli waxtu sax toog di xaar beneen waxtu bi ñëw waaw sant yàlla daal bu baax a baax dama kontaan ba nga xam ne li ma war a wax yëpp wax yëpp sax mënuma ko wax waaye nag ñu ngi ñaanal sëñ Maxtaar yàlla may ko wér wér goo xam ne wér gu sax dàkk lay doon def fanam wi doj mu yàgg fi lool lool lool lool ba ba nga xam ne dana gunge njaboot gi daal bañ gën a dëgër gën a ñeme wax dëgg teg na leen ci yoon te mu ngi leen di teete mi ngi leen di dimbale ñu ngi sant yàlla bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf ci kàddu yu am solo yi wax nga ko ci sa biir yi wax daara ji jàpp mu dox jàppul mu dox mm. comme ni ñu ko yàggee déggee rek ñu naan la bëri nga si mbartal la rek mm. teg sa loxo day dem teg sa loxo ñàkk teg sa loxo day dem kon noonu lay doxee kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di jàkkaarloo waat ak suñu mbokk mi di Serigne Mouhamad di la laaj sa kàddu gu mujj mujj gi nga xamante ni moom ngay dénk ñi lay siiw waaw ñi may dénk mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñu gën a jàpp ci daara ji ndax euh, daara ji daaray maanaam daaray alquran la toolu xam-xam la te toolu xam-xam xam-xam lépp lu taxaw te xam-xam moo ko taxawal kon ñu xam ne képp ku jàpp ci daara ji rek yaa ngi bokk ci ñuy service alquran te alquran yonent bi sallallahu alayhi wa wax si alquran mooy yàlla am na ak njaboot ci kaw suuf mooy mooy ahlul quran mm-hmm. inna lillahi ahlina fil ard mm-hmm. ba ko saxaabi laaje man hum ahlul quran hum ahlullahi wa mm-hmm. te ñooñu alquran nekkoon ñuy jàng ak ñuy jàngale rek ñay jàpp si liggéey ba ci lañ bokk moo xam na nga jàppee ci ci wax la ci jottali la ci génn sa poos la lépp mu ngi bokk ci ahlul quran kon maa ngi mboobu mbokk yëpp jàpp ci daara ji waaye tamit ji gën a dooleel seen biir di daaray Koki TV ndax kat seen la boo xam ne day ngay jottali waxi borom bi subhanahu wa taala te te delluwaat ba tey li ma waxoon sànq ne mooy ku si jàpp si scène bi lu ko gën a yaatal mooy yaa ngi jàpp ci alquran kon ñi ngi woo mbokk yëpp ñi gën a abonné si seenu daari alquran bi comme ni ñu ko waxee ñoom dañoo soxla objectif mooy cinquante mille wii lañ soxla ñoom loolu la wax sax waaye ñun un million fii sax yaakaar ne ñun moom la ñu demandé ñun kon ñi ngi woo mbokk yëpp ñi gën a jàpp si seen bi ñun seen bi moom yàlla def na bu ñu demee daara ji rek fa la ñuy jubali direct pour seetaan ko alhamdulilah waaw jërëjëf jërëjëf kàddu yi am na solo matale na kon ñu ngi leen di dolli di leen jaajëfal di leen dollee dalal ci daara ji di leen dollee dalal ci xol yi euh, tamit di wax mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy des di suivre seen bi di daaree Koki TV di leen jaajëfal ñoom itam Euh, kon di leen jox dig daje ak ci beneen jotaay ci beneen ganu daara ji kon cere ngeen jëf. amul ñaari soxla amul ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sunu soxla amul beneen soxla. sunu lépp ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak yëpp sunu mbir mépp mép mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox. nañ jàpp ci daar yi nañ jàpp ci daar yi rawaat naag doomi daar yi jaar ci daar yi doomi daar yi teraang yi leen yàlla jox xëjul ci daar yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk Daarakoki TV la chaîne au service di Saint Coran télé bi liggéeyal al Qur'an al Karim